nan nga mën jàngatee aussi euh, boobule actualité nga gis ni carrément Walfadjri ci manifestation yi nanu tëjoon euh, li nga xam ne nag moo di signalam lu tolloo ko ci weer euh, nu daal di attaqué boobule décision fële ca cour suprême tey nu daal di am li nga xam ne nag moo di dëgg. waaw parce que dëgg rek mooy dëgg parce que loolu moom kenn amuloon sikki sàkk ne Walfadjri mooy am dëgg. Mm-hmm. ndaxte ñëpp xam nañ ne. Bokar Bokar. Moussa Bokar Thiam Moussa Bokar. Euh, dafa bokk ci ministre yi nga xam ne histoire u Sénégal du leen fàtte. Hmm. parce que dafa am ñoo xam ne dañ am na jëf joo xam ne boo ko jëfee ci askan kenn dootu la fàtte. Hmm. Euh, ndeysaan am naa yéen booy ngeen quoi <laughs> mais su ngeen fàttee ñun bu ñuy fàttaliku euh, jamono jiboka yal na ko yàlla yërëm. Hmm. jiboka bi muy nekk ministre de l'intérieur. Uh-huh. jamono boobu ci la le 16 février amoon. Uh-huh. jiba ko moo moo interdit woon euh, tasoon daayiratul mustarchidina wal mustarchidaat uh-huh. moom waaw comme comme comme expérience bi passé dund rek. am na année boobu 94. Euh, mën nga wax ne kaso yëpp dafa fees dell ak ay mustarchidin waaw tas daayira bi kenn amatul droit def def def daayira ci Sénégal. te moment boobu noonu Dakar. ajjuma boo daanaka boo quartier boo dugg day riir ndax uh-huh. daayira Moustarchidine doole bi mu amoon mu mu tas ko uh-huh. donc euh, léegi damay wax ne léegi ana jiboka uh-huh. dem na wuyu ji na boroomam léegi ana daayira ba mu tasoon mi ngi continuer ba léegi dafa gën a am doole parce que bi jiboka di tas daayira bi boobu parti am daayira bi amul parti léegi daayira bi am na parti jiboka wuyu ji na boroomam daayira baa ngi am ay député euh, jiboka wuyu ji na boroomam daayira bi mu ngi am euh, dégg nga maam euh, di bokk ci ay élection mhm. dégg nga bokk ci coalition yi gën a dëgër léegi ana Djiboka tey wuy ji na boroomam wëy wëy wi mu jëfoon rek moo fiy des mhm. waaw te boobu bés boobu bés yooyu bés yu lëndëm la woon mhm. bés yu lëndëma lëndëma lëndëm dañ doon dem di duy ay njaganjaay ay duy kaar ba mu fees wàccee Moustarchidine yi sànni leen ci kaso yi jàpp sëñ Moustapha Sy mi ci leen ko tëjee tëj Abdoulaye Wade tëj sëñ pam Malick Sy kaso yu fees dal donc loolu jaar na fi. Mhm. ji bokk boobu moo nekkoon ministre de l'intérieur. Mhm. bon man boo xam nga yooyu boo koy fàttaliku. Mhm. mais dama ne man mi dund jamono jiboka dund jamono Antoine Diome. dama ne Antoine Diome moom daa jël drapeau bi moom. <laughs> Antoine Diome man foogu moo ne jiboka <laughs> ima souvenir yi ma am ci moom. dinaa amati lu métti noonu parce que euh, du gis nga gis bi nu ja man jàpp sëñ Moustapha Euh, naqar yu ma ci amoon ci guddi yooyu mënuma ko expliquer. Uh-huh. yaa ngi dégg mais fooguma woon ne dinañ amati ministre bu bu l'intérieur boo xam dinañu dund lool lool mais mais mais bi man jamono Antoine dama ne ñun de tey suñ mënoon a amaat jibo ko dañuy sant yàlla. Uh-huh. par rapport ak booy bii nii. dégg nga parce que ñoom dañu jëf jëf joo xam ne rafetut duñu leen fàtte Antoine Diome. Uh-huh. Ismaïla Madior Fall ak booy bii nii booy booy. booy Thiam booy booy Bokar. <laughs> mais vraiment man dama c'est li ma doon métti li ma doon métti en fait dama doon wax ne mais Ismaïla sax mën nga wax ne ci paa yi nga koy boole. Uh-huh. mais ñii ay booy lañ ay xale yu ndaw say morom lañ. ay xale yu ndaw mel ni sadik mel ni ñoom dégg nga ci jamono itinéraire lañ laan forme amuñu yërmande arrogance soxor dégg nga in dégg nga coupé télé man waaj bi muy bi muy coupé internet yi. Uh-huh. boobu maa ngi Espagne affaire bi naqari ma naqari ma boole ca yaree di ku nag. Uh-huh. di di di song di attaquer ndongo daara yi wax wax wax bu mu wax rek wax tooxi doona uh-huh. man ñetti ministres yooyu duma leen fàtte uh-huh. mais du ma fàttaliku ci ñoom lu rafet uh-huh. parce que kuñ ne yow yaa njëkk a internet Sénégal loolu xas la <laughs> wala way wu rafetul la de internet fii nii moo ko fi dagg ñaari yoon xoolal jamono jooju man ba mu koy njëkk dagg fi la ma fekk mais xoolal semaine boobu nit ñi niñ sonne Hmm. koo gis mu naan man ci laa xamee VPN. VPN xaw VPN VPN. <laughs> boo amul VPN dama daan dang dang yi dem ci booy naan leen waa booy luy VPN. Hmm. nan lañ koy chargé. Hmm. <laughs> dégg nga booy di naaj booy di jéem defar defar ne bii baax na ne non bii bii moom gars yi bloqué nañ ko léegi man ci laa xamee. <laughs> moo tax sénégalais boo gis. portable am am na VPN. parce que Moussa Bokar Camara. Euh, am musiba woowu yëpp moo ñu ko dundaloo. kooku du am dëgg. dégg léegi nag ah doole jeex na. Euh, folleku dikk na léegi histoire mooy des histoire nag laa yarham hmm. arab bi dañu ak xam laa yarham histoire du yërëm hmm. buy wax ci yow ni nga ko waxee ni nga ko jëfee rek loolu la koy loolu lay kii hmm. donc xale nga euh, foowe nga sa avenir foowe nga sa xam-xam ndax ak post bu ñu la joxoon nga def fi wax yi ñu wax def na fi wax ju ñaaw parce que moo fi xas ndongo daara yëpp ñi génnee ci daara yi xeeb leen naan duñ yor réew meeg yooyu te yow ñi xew ñi génnee ci daara yi. ñoom ñoo la ëpp xam-xam ñoo la ëpp xaalis. nga ne du ñu yor réew. ah yow sëriñ bu fu mu génne. sëriñ boobu mii nii. daara la génne. sëriñ boobu. Mhm. fu mu génne. daara la génne. Abdoulaye Dia Séniko fu mu génne. daara la génne aussi. dégg nga Moustapha fu mu génne. Mhm. ak. immeuble bu sud Dakar. ah bu sud dakaar waaw Juga Juga Kébé. Juga Kébé exactement ñoom ñëpp dégg nga ñoom nga xam ne ñooy milliardaires yooyu nga xam ne yàlla moo leen teraang jox teraanga ñooñu ñëpp di doomi daara nga leen di xeeb. Mhm. bu dee ci xam-xamu àddina bii nii àddina yii nii. dégg nga xam-xam boo wax rek mën nañ laa wax ndonga daara yoo xam ne ñoo la dax jàng parce que dama ko doon dama ko doon wax bi mu waxee loolu mën na ko yow ah xamoo ngañ dem ba Touré booy boobu noonu nga xam ne yaa ko mag booy boobu mën na laa jàngal boo demee ci wàllu économie mu jàngal la boo demee ci wàllu droit mu jàngal la mhm. te dafa mokkal alquran baqara ba naasi mhm. waaw est-ce que xam nga loolu mhm. gouvernement bi mooy seul euh, moom du ministre de ah. mooy koo xam ne dafa tari kaamil bi ba pare de ko am bac arabam ba pare continuer dem njàngi jàngi jàngi ci université yi yor xam-xam yi baqara ba naas da la koy tari waaw léegi nga ne di nga xas ndongo daara yi parce que ndax arrogance rek yaree di ko rek xaalis bi bëri na boo kii ñu gars yi wër la di kéng di ñeew ñeew yi noonu di <laughs> dégg nga nga beew donc Walfadjri ñun ñëpp xamoon nañ ne day am dëgg mhm. parce que mooy mooy mooy chaîne boo xam ne Sylla mhm. mën nga koo song mais doo am ci moom ndam mhm. parce yéene bi ko sos moo sell dama lay wax toujours ne euh, patron de presse yi dañoo juum parce que dañoo gis Sidy Lamine taxawal euh, Walfadjri dégg nga nit ñi naan walfu walfu yu Ndour fëxee fële moom it ñëw créé dem ronqi journaliste Walfadjri yóbbu boobu moom business la doon xool xaalis la doon xool loo xam ne di bu yoree presse mën naa def pression ci état. ci laa bokk fekkee ci laa bokk bu fekkee ma ci boole ay l'observateur ay journalam di bind et am fu mu faree état état fu mu ko am fu mu ko faree. Mhm. ñu ne waa déet buggaan jël fël parce que ñoom yéene bi ñu taxawalee seen kër yooyu. Mhm. ak yéene bi Sidi Lamine taxawee du benn Sidi Lamine dañ koo tëj prison. Mhm. ci biir prison bi mu gis injustice ci la dogoone bu génnee dina dugg ci presse. dégg nga donc Walfadjri loolu moo ko jur. léegi boo bëggee xam presse yi fi am ci Sénégal këru këru këru xibaar yi. Mhm. da ngay xool yéene bi lan la. Mhm. ki nga xam ne dafa sos këram pour xeex injustice du bokkul ak ki nga xam ne dafa sos ak këram pour business am xaalis. Mhm. dégg nga tey boo xoolee xaalis bi ñuy naan euh, kii nanguwuñoo fay impôt. c'est parce que ci système bi la bokk. bépp organe de presse bu nanguwul a fay impôt rek. xamal ne ci système bi ci la bokk. donc Walfadjri li ko sos bokkul ak li sos gaay yi mhm. moo tax fu mu demee gaay yi ci yoon day am dëgg mhm. te ku ko song doo mën a am doo mën a am dëgg ci kaw Walfadjri mhm. Sidi Lamine dafa sos kër gi pour jaamu yàlla dégg nga moom laay wax ne ñii mënuñu opposé Sonko mënul nekk mu Moubarak dafa dugg ci politique pour jaamu yàlla ñële dañu dugg ci politique pour wut àddina Ousmane Sonko dafa dugg ci politique pour àllaaxira ñii dañoo dugg ci politique pour politique politicienne. Mhm. du benn. parce que bokkuñu kii daal fu ñuy. niveau yi bokkuñu fu ñuy daw. Mhm. waaw bokkuñu xaw ma nu ngeen koy waxee. Mhm. boxeur yi fi ñuy nekk noonu. <laughs> bokkuñu bokkuñu fu ñu boxoo bokkuñu fu ñu nekk. parce que seen seen départ ak seen yéene du benn. donc Ousmane dafa dugg ci politique pour jaamu yàlla. Sidi Lamine bi muy faj Walfadjri dafa ci dugg pour xeex injustice. pour jaamoo ko yàlla. waaw. ba wuyu ji boroomam. dal na ko yàlla tàbbal aljanna. amiin mais Imaam euh, tey jii man ci li ma bëgg ñëw rek euh, peut-être euh, kii di wal fajri yoon moo ko jox dëgg mais lan moo war a mun a tax ñu toog ba heure bi dëgg googu soog a génn wala li ñu doon wax ci justice bi moo ko tardeel. waa Fatima xam man damay wax ne. Macky Sall feeg mu ngi fi doon nekk rek. pour nit am dëgg ñu jox la ko du yomb. boo gisee nit ñi amatuñu woon yaakaar ci justice. dégg nga looloo tax mais tey fi mu ne euh, yoon mu ngi noyyi. Uh-huh. attekat yi moom ñu ngi moom seen bopp. dañuy wax li teg yi wax. Uh-huh. amul benn pression bu fi nekk mais fekk Macky Sall la ngi fi woon. Uh-huh. Walfadjri pour mu am pour ñu jox ko dëggam du yomb. donc léegi nag sant yàlla. yoon mooy wax mooy mooy wax. parce que kenn tegul ci seen kaw pression. Uh-huh. ñu ngi wax àtte seen diggante yàlla moo tax ñu jox leen seen dëgg. Uh-huh. te wax dëgg yàlla ñun ñëpp xamoon nañ ne loo ñàkk ñàkk ñàkk xam-xam. Uh-huh. xam nga ne boo boo Bocar Moussa Thiam mii li muy def du dëgg du yoon. ak jaay doole képp la. waaw doole jëm doon jaay nag jeex na. tey ku bëgg sa dëgg demal ci yoon. waaw bu ci jamono Macky Sall ngay nit ñu jalgati sa àq. nga ne du ma dem ci yoon. parce que su ma demee du ma jot dëgg. parce que bokkuma ci parti bi. waaw bu ma demee du ma am dëkk waaw parce que bokkuma ci parti bi. parce que ànduma ak Macky Sall ko loolu nag la woon woon ni na. vraiment alors euh, mi ngi noonu daanaka euh, la woon woon na comme ni nga ko euh, daanee léegi.